première fois depuis vingt quatre ans de carrière autant de victoires autant de combats international sénégalais en lutte traditionnelle avec frappe et en lutte olympique mais nag xëy na dafa doog a jot Sénégal am na tàmm moom euh, da ngay faatu luñ ci yàlla musal yàlla sax bu ci yàlla musal tax dañ koy def yàlla yéex la ñuy ñaan bu yéexul tam si ñooy nekku ci et euh, ngay dund def la ko nga bëgg waaye hommage à diw drapeau de diw fekk dund na par xam pour si na jafe xamu yu noonu man bu ma loolu lii ngay dund di fekkee yàlla nañ ci baax dana fekk yóbbu samay doom bi fekke samay soxla di seetaan samay am jàmm ànd ko man daal mooy mbégte bi nga xamante ne vraiment moom laay manifesté ma toll maa ngi di delluwaat sax am 18 ans ci situation bi mel nii ndax am na ñoo xam ne kontaan nañu doomu aadama je pense que ne aussi euh, ci biir làmb li may gën a mel amul ci lu bon lu baax lay doon ñi ma doon la ñi ma jiitoon ci làmb ñi nga xam ñoo tax sama ginnaaw semaine donc ak salaam la seen teraanga rek donc nag ñu ma mel nii nag roi des jàmm ak salaam ñaari mbëri ñëw ko bëri ko ci tal ak fekkee kii daan daan kii daan daanu parce que fekkeen daan moroom mi lam moom bi ci nekk mooy daan daanu u machine avant combat yi la ñii ay Ama Baldé ñëw na tey Modou Lô ñëw suba dem nañ jàmbi nangam ñëpp bokk ci coow lamb mais nag je pense que bu yàggee ñu koy répété day mu soofal làmb yàq làmb ñu ñoom sax fitu dem làmb làmb boo passé fii ci public mais nit dañuy ragal a dem làmb ndax situation yi ñu ngi dund mbëri sont correct ils sont bien man su ñi xamante ne ñoo topp si ginnaaw mbëri ñu ànd ak mbëri bu nangu mbëri yi gën leen day bàyyi ñu gën leen bàyyi parce que ñoom li ñu defal mbëri yi rek dafa ëpp mbëri mënu leen ko fay moo tax ma ne bu nekk dafa di xëy suuf naan maa ngi baalu ak samay supporters ak ñu am ndax su xeer ñëwee ñoo koy dikk suñ leen jam ñoo koy dikk même bu ñu dee bu ñu sëpp saafara ñoo koy dikk buñ laaj gàllaaj jotee ñoo dugg oto yi fu dem si wuti gàllaaj ko nga am ndam booy nelaw mel ni yàlla nga ci ñoom donc mbër war nay delluwaat ñu jikko bu baax a baax a baax bi nga xamante ne ñooy seen i supporter ak seen àndandoo ñi ànd ñoom tamit ginnaaw boo sonnee ci mbër bu nga dëkk ci moom bu nangu suufee sa bopp nekk dernier des ci ngor parce que am nga sa liggéey booy def te encore ci gën a garaaw sax mooy ñi ñuy jàppale ñi mbër yi bu ñu amoon deux mille xam na mbër mi soxla ko dañ ko jox ndax yàlla yàlla moom may mbër ku ko gis bëgg ko nangu ko defal sax moo la ëppale donc mbër yi war nañu delluwaat njukkal seen i amateur delloo seen njukkal làmb te xam ne làmb mooy seen trésor ah mbër yi ma gis ñu ma gis xëy mbaa koy yoon bien vrai que ñoo am di liggéey sax boole ko bëree mais bu ñu tollee ci niveau fayeeku yenn xaalis dootoo dootoo dafa tax ñu dem di bëri kon nañ ko gën a fonk gën ko ñëw jamono ji woon na fekk ñu fayeeku ay milliards pourquoi boxeur di fayeeku milliards footballkat di fayeeku milliards lamb gën a métti fuuf pare Sénégal bëgg ko te àggul ci ba léegi sax ay cent millions ngay dégg cent dix millions cent vingt millions te ma xam muy demee ñoom ñoo ko defaraat taar bu ñëwee ci làmb ji nekk ay bel seen jekk seen yëpp dafa ñu teg ko seen rango seen gàjjaj ba mu la fayda bu ñu ko dégg ne ah kàddu yi de wàllu yi sax mën na ko ñoo nañu seen ci ñoom ndig yàlla lay war suñu ñaan nañ defar seen taxawaay suñu doom dañ ko bàyyi def dañ ko bàyyi ci bëri mais dañ ko seetaan di ko dund ñaari ñu faral ñu neex kenn mënu ko dara ñaari ginaar bu ñu dee xeex am na ko faral dama ne ku dem làmb dama bëgg àtte doomu aadama yi ci ay biir biir muy reporter bi muy kër caméra bi muy borom télévision muy borom CNG ki dëkk président CNG dix combats yi am chaque jour saa yu ñaari bëree ma mën xamul xol ba ne sot dem ci kenn mënut a ñàkk donc nañ di faral diw waaw bu nit faralee diw li mu wàññi diw ndax ñëpp ñoo faral kenn ci lay faral kii comme tey jii mais ñaata nit ñoo faral Ama Baldé yàgg ñu faral ma euh, Modou Lo est-ce que Modou Lo mën naa tere ñi faral Ama Baldé bañ a tere faral Ama Baldé est-ce que Ama Baldé mën naa tax ñu ñuy faral Modou Lo ñu faral Modou ki koy faral mi ngi koy faral rek donc animosité du ci am far xol la bëgg xol la dañuy faral aussi di yàq ay coono les ñu ñuy analyser analyser yàggul ci làmb bu njëkk ba suñu suñu jamono daaw ñu dëkk ñu bëggoon ko loo xam ci combat bi ndax Moustapha Gueye moo dàq bëri wala ndax Taji moo dàq déedéet dañ ragal xool ku ci mel ni El Hadj Birame maa ngi ko nuyuwaale. boo demoon këram du ko danaa non non non dafa ma ko dana ma damay bañ ku ma xas. day bañ ku xas daa may doom am ay sët man dama koy bañ mais du tee rek benn samba booy mbay benn baadoolo buy bind mbaa buy xaste mënta mënta ñàkk mais analyse dafa baax ci làmb. waaye nag kay analyse dem na ne fekk mu doon ko war a analyser. Ah. attention analyse sportive dafa ak analyse ak reporter ndax mhm. reporter tam dafa yàgg ci làmb mhm. ba xam bëri xam luy padd xam luy nooj xam luy wéng xam luy mhm. wéyla xam luy konko xam luy kolma xam xeetu bëri yëpp ndax ko reporter ñëpp da ngeen bëgg làmb moo tax ngeen liggéey ci làmb toog la nag ñoo liggéey ba am xaalis dangeen ko bëgg doon toog di seetaan mu ci jox la micro ñëw dem nga commencé dem muy neex waaw ki ngay dégg micro mi laaj bu waxee eh, yéen itam da ñi xas ñi analyser bu ñu du baax du neex si Ibrahima Ndiaye waxul Moustapha Gueye waxul Mansour Diouf waxul Dégol waxul ko Konaté waxul Samba waxul ba waxul benn mbër waxatul ci làmb di ngeen gis ne kon làmb day gën a dee kon boog nañu may chance bàyyi seen papa yi nga xamante ne tey am nañ 60 ans la jëm kaw di wax rek pour mu baax ñuy bind di leen xas mbaa ñu leen di saaga mbaa ñu di tontu déedéet man de bu bëggoon su ma xas daree ci kaw Modou Lo Modou Lo jël micro ne way ko tafaa nangam mais pourquoi benn Samba booy Modou Lo wala benn ràllu Modou Lo wala benn nit ko xam ne estimé moyen zéro moo may tontu man Moussa Fage non yow am nekk ma nekkoon ba di bëriwaat wallaahi al mu am combat ak tey jii Lamine wala waxanteeg Lamine supporter Lamine ba ànd Lamine ñëw ci man di ma adressé ay parole na Moussa Diama defoon naa def bu ko fekk kër mbaa fu ma dee ma xeex ak moom mbëri da jëlal système boobu ku wax ak yéen xas leen mbaa mu toroxal leen mbaa mu leen saaga te dab leen ko ci mbedd mi bu leen yónnee sàmm bu leen yónnee dama dab leen ko. bu leen demee sax bu ñu leen tëjee baal ma baalu suuf suuf. saaga waxal sa bopp li mu wax waxal sa bopp yow wax ko boppam du duñ koy def seen laa ma ñëw di wax ci mbedd mi rek mais bu jàkkaarloo mbër ma ñuy saaga yow lan nga mën a fekk Ama Baldé responsable dina am moom la responsable dina am yow bëri woo moom bëri waanoo moom nga taxaw di ko yàq musiba pendant ba combat bu taxee ba mu tas. bu subaa nga dajeeg moom noonu làmb la woon dañ doon jaay combat yow loo jaay combat yow bëri wu bëri woon ku jaay combat kii bëri ñi ànd ak suñu bëri yi di leen wax jàmm ak salaam ko en bi ñuy dirigé ñun ñu ak doo dégg ñoom combat mu suñu ay supporter rek suñu yi nekk ci ginnaaw di yàq mbër yi ko duñ ko nangu a la parce que sunu ñun sunu at bu dee bëri ji nawleem lay bëree jil ah. nawle boobu mu bëreel na ñoom ñaar teraanga moo doon seen diggante li koy waral teraanga bi mooy da ngay summeeku mu summeeku nga defee dem ne ngeen tampaloo ko kii daan daanu ko daal a a neex daan ñaar bi dañu nekk ci ginnaaw bu ko tilmal bu ko ñaawal bu ñëwee face à face bi ñëpp daw ñu yore jaas ñu yore paak ñu yore saafara kon dugg ci biir seen yoon nekku ci loolu tey yi liñ tey c'est beau tey su Ama Baldé ñëwoon toog nii Modou Lô ñëw toog benn bu di am Modou Lô dugg si na benn la àndal aménage yaram respecté son contrat Ama Baldé bu ñëwoon noonu lay def bu ñëw ma def ko mais mbir yi commencé cee topp ndax combat bi combat bu mel nii mu ngi jëm Sénégal combat bu mel nii dix ans yu nekk benn yoon lay am te bariwul mën naa sax ne cinquante yu nekk benn lay am donc ñoom dañ ko waroon a gën a tag tagal gën ko aj gën ko defar ba nga xamante ne ñu topp seen gënaa sax mën nañ ciy dund kon absence Ama Baldé am na lu mu def man tey ci combat waaw ah, il faut dire que nag quand même euh, comme ni ko Mourou loo ñaanal rek yàlla nekk jàmm rek téye ñu xamaluñ ko dara toog nañ ñu woon ñu ay image man góoma image yooyu na Ama Baldé war a ñëw fii. 8 heures ñu ngi ko convoqué 20 heures 45 xaw ma 20 heures 50 ñu toog ba ay minuit mu yàgg tas ñu ñu wane ay image non loolu ay image yu Ama bu nekk image yu Ama Baldé d'accord wala Ama Baldé war a a fees stade ba lamp yi tàkk fuye yi tàkk kon Ama warul nelaw tey bu subaa war na xëy lu mu xamoon lu koy may ndam mu ne ci guddi bëccëg loolu laa expliqué quoi que ne vraiment ko téye ñëwul daal absente na mbëri yàgg na absente nag mais absence bi mu feeñe dafa dafa métti doy waar parce que ñaari mbëri ba léegi toogaguñu daje nañu Gàmbi mosu ñoo daje kay daa toog nee 100 mètres ki toog nee 100 ku nekk ba ko fa fecc keroog bu ñu demoon pour la première fois ñaari mbëri ku ne si kër lañ dem jël la innovation la mais tey ji nag Sénégal yi ñoo ngi xaar ñaari mbëri yi ki yore bëjjënam ki yore xaam ñu toog di waxtaan ñu saafante waxtaan moom chaleur wàññi loolu soo dafay apaiser li nga xamante ne mhm. mooy tension yi ci ñi ndax ñàkk ñaari ñàkk ñaari mbëri ñàkk ñàkk gi jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo tax na day tax nit ñu bari di am la peur dañuy dañuy dañuy am doute naan kii dafa kii kii dafa kaa kii bëgg na bëri kii bëggul bëri. te ñu ngi doon wax vers blessure ak yooyu noonu. blessure woon nañu ci àll je pense que mhm. nag mais nag aussi il faut am na loo xamante ne foog nga dund làmb yàgg ci pour xam stratégie mbër mën naa am Ama combat bi daf ci option mooy damay nëbbatu day am ci combat nga am combat di ci lépp waaye nag laqatu ci lépp boo xam ne dafa am contrat mooy problème bi déjà laqatu na kenn gisu ko kenn dégg ko yéen ñi filmé sax ak dem ci entraînement kenn amu ci Ama Baldé benn weeyam rek bu ñax xam la moo tax ñu naan Ama Baldé jàppul forme Ama Baldé nangamul parewul mais koo gisul nga xam dafa la barawul tey ñu gis Modou Lo def dox vingt mètres yu gàtt yi ñu ci kaw fii nga xam ne kii kat ah pare na loolu sportif bi koy wax nag ñu ay gis ñu Ama Baldé pour xam pare na wala parewul war na dut boobu ñuy semé nag peut-être stratégie la boobu bu ñëwee ki bu ne futee toog ngeen ne wéewe kii fu mu jógee kii li mu doon def lii moo tax mu doon def jar na ko nag u jaru ko waaye nag la promotion du combat loolu dafa nekk obligatoire ay contrat yoo signé la kii weex ñu bind ko ci bind mu ñuul se dem seet yi defal avenant comme ni ko waaj waxee ak ni ko président Maïssa waxee ay sanction mun na ci topp ñu nag bëgguñu sanction ni kenn bëgguñu dagg xaalis kenn dañ ko yàgg xeex di ko jooy xeex sanction ak daggal dagg xaalis moo tax ñu taxaw jàkkaarloo seen jooy bañ jóge fii kon loolu duñ ko mos a bëggaat hmm. waaw buñ continuer nag la woon ah dañu mujj rek croise suñu bras dem toog wala algim damay ànd ak li ñu ñëw tey mën sa waaye wax dëgg yàlla bu woon sama sago su ma gisoon ku may jox combat à la place bi guy dama koy jox làmb du ma ko sax xoolati loolu tamit métti ci koo xamante ne dafa dépensé ay centaine de millions nam toog di xaar c'est vrai ñaari mbir yi tamit am nañ problème mooy toog nañ cinq ans ba réewuñu ay blessures rek ay ay détails yu mujjantal gi rek dafa rafet rek jaar yoon ñu jàll ko dem ci neen parce que làmb dafa bari ay rebondissement mais fat na alal maxari càmm combat la combat moo ko yàq ba tey baaxatul gars ku ne gàddu seen gàddu làmb gàddu làmb yàgg nay toj lamb yàgg na am ay détails yàgg lamb yàgg na am mbër dëmb ak suba moom problème yëpp ay détails lamb rek mais bii nag moom vraiment dañu soote woon vraiment que yëf yëpp jeex ñu def ko ku ne jàll sa morom Ama Baldé soxla na euh, bëree le 5 le 6 bu dox soxla am dem nekk ci benn combat mu lu soxla kenn soxla na ko ñuy ànd ak moom soxla nañ ko donc dañ ko war a gën a encadré ci loolu gën ko encadré mu lu ci loolu dara xewagul nag parce que le 5 dafa des deux semaines bu dafa des deux semaines nag ñaari mbéy tamit ñeen naaw ñeneen ñu doser seen ay entraînement lépp luy risque lu mën a tey def sa combat parce que la tax li tax ngay entraîné mooy lan mu bis bi nga ne cocc yeewu foo laal du métti fépp baax nga fonctionné boo ko caaxaanee nag nekk ci entraînement def la warul def ak manqué de manqué nelaw ba amul la dal di nga mere ko deful dara parce que un athlète dafa war a pare le jour J wala am lu koy métti A ba Z kon ñu leen naabaat rek ñu moytu yenn action moytu yenn jël gants yi moytu yenn prise ci bëri contact yoo xamante ne dafay indi blessure loolu xam nga moo tax ñu koy bëri nañ ba tàyyi saa bu ñu bëree ji nañu bëree ji blessure néew na nag mbër di bëree ji te amul au moins sax lu foxat ci moom mbaa lu koy xaw a métti mbaa far bu dérangé benn luxation mbaa benn entorse mbaa yoo xamante ne da koy gérer ñoo bëriwaale ko ñaar ñi daal ko dëgg yaa ñeen di ñaanal noonu ñu mel ni dërëm nag cot